Elhadji Ousseynou Ndiaye dal leen ak jàmm ci xibaar loo xam ne nag jëm na ci passeport diplomatique yi nga xam ne daal dañu ko doon joxe na lu ne kay jamono ji ñi ngi maanaam passeport diplomatique yi nga xam ne daal ku mu neex ak ñeneen ñi nga xam ne daal dañ cey jot te yaayewuñ ko kaay bi dañu xamal ne loolee kay tax na

loolee nag tax na jamono ji ñu sàkku nag ji ñi nga xam ne nag ñoo di kilifa yi lépp loo xam ne nag jëm ne ci AFP premier ministre bi nga xam ne dafa waxoon ne dañ koy dind ci réewum Sénégal yéeni kaay bi di ñu xamal ne ñoom ci la doon amal gannaaw ak communiqué boo xam ne génne nañ ko ñoom daal dañoo xam ne ne lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn ànd nañ ci baax yéeni kaay bi di ñu xamal ne kay njiitu réew mi président war naa daje maanaam daal aliyéem yi nga xam ne ñoom la war a ci ndaje moomee nag bëri na ay bi dañu xamal ne ndaje mi nga xam ne daal jotoon amal am na xam ne nag a fës kay mooy ndaje ma yàgg dëgg la def ndaxte am na lu toll ci juróom benn waxtu yoo xam ne ndaje ma ko waaye ndaje ma amul benn organisation xam ne am na fa ndaxte ci poste ministre bii nga xam ne bëgg nañ koo dindi ci réewum Sénégal moom maître xam ne moom kay ànd jaak daanaka jëm na ci fànn gu ni mel dafay wax ne njiitu réew mi na ko xoolaat bu baax ndax ay jafe-jafe mën na ko ànd ci réewum Sénégal jafe-jafe yi nga xam ne daal amoon mi na ko xàppati woon di ko ay yoo xam mu ne na ko ak ne ci wàllu commerce ci réewum Sénégal yéen kaay bi duñu xam ne loolee kay jamono ji gi nga xam ne ñoo doon grève banque loxo gi nga xam ne nag dañu ko doon amal daan nañ koy dakkal yéen bi daanee lépp loo xam ne na ci wàllu làmb yéenekaay bi di sunu làmb di ñu xamal kay combat bi nga xam ne nag moo di Tapha ak ki xam ne nag moo di Ama Baldé promoteur bu mag bii nga xam ne nag moom la ñuy wax Pape Abdou Fall ji nag balaa yàgg lépp loo xam ne jëm na ci combat boobee dinañu sëgg bëre